Malang Fadera maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Malang Fadera nga nekk travailleur social spécialisé 15 mars bi ci la ñuy màggal bés bu ñu jagleel travail social ci àdduna bi naka nga gisee déjà bés bi nga xam ne moom lañ jagleel travail social. waaw lu may lu ma jot a ñaaw la rek si mbir mi mooy at bu yàlla dogal suñu yeggee ci way bés bi nga xamante ne dañuy jagleel euh, ñi nga xamante ne ñooy liggéey si wàllum travail social dañuy dellu si si même doléance ak même recommandation yi ak yàlla def te loolu man dama jàpp ni du loo xamante ne vraiment euh, day encourager sax ñi ñu war a gën a mën a foncer si li ñu nekk quoi ndaxte it euh, soo xoolee euh, jamono jii ñu toll ca tembe la ñuy dund Sénégal wane na nag état du Sénégal politique sociale yi nga xamante mu ngi koy tëral def see daf see lajj la war a lajj bi nag mooy ñi nga xamante ne ñoom la war a dénk mbir mi da leen fekk teg fa eh, ñi nga xamante ne mooy juste ñi nga xamante ne mooy ay question de militantisme la ñu bëgg rek donc loolu waral ñuy jël ay koppar yu bëri bëri ay milliards di dugal si ay politique yoo xamante ne politique yu war a waroon am solo la bu fekkee ne waroon impliqué impliqué nañ leen ci waaye aussi fañ koy mettre en œuvre ñu boole leen ci bu fekkoon ñooñu ñëpp boole woon nañ ne sax xëy na am na am na am na xam dañ koy rencontré ci mbir yooyu mënoon nañ ko teggi te que milliards yi ñu dugal mënoon na jëriñ Sénégalais yi donc mu jox la du Sénégal dugal yëpp la moo tax mu laaj parce que bañ koy ñi nga xamante ni ñoom lañ ñoom ñoo ko jàng maîtriser ko xam ko ñoom lañ jël seppi ne rax si loolu ñu ne léegi dañ dañuy déroulé au ñoo ko jàng ñu ne ba tey loolu dooyu ñu ne dañuy dem jël suñu militant daal di def jël si looy defee nga koy piloté par par par émotion par événementiel loolu loolu sotti su bëggee avancé day bind si li nga xamante ne mooy affaire question euh, question d' événementiel dox si loo xamante moo koy jëriñ quoi donc Sénégal rek ngay jël euh, ngay jël nit ñi euh, comme ñoom quoi parce que man mosoon naa sax bind benn article ma naan la confusion au sommet de l'État mooy ñoom dañuy jaxase la mooy assistance sociale la mooy politique sociale la mooy politique politique sociale donc dañoo nekk si benn confusion boo xamante ñoom ñii nga xamante ne ñoo ñu war sax xamuñu loolu ndaxte dañuy jël ñoom social ñu bëgg ko tënk euh, mbirum social bi yëpp tënk ko ci la nga xamante mooy séddale ceeru diwlin ma ne la mais attendez vous croyez que ñun dinañ jàll concours boo xamante ne concours bi euh, na mu jafee pour nga jàll ko say junni junni Sénégal ñu seppale si yéen ngeen di trente personnes chaque année ñu formé leen ngeen def ñetti at pour jàng falan pour distribuer ak ay dons non loolu loolu mënta sotti bu fekkee da nga bëgg matérialiser fekkee nga ne immeuble à dix étages la maanaam ay séddale ak maye loolu premier étage kese la. Mhm. li gën a am solo sax demaguñ ci ci Sénégal di état du Sénégal malheureusement moom mi sax si boppam comprendre gul loolu. d'accord kon euh, déjà euh, nga wax ñu importance su travail social travailleur social bi moom lan mooy liggéeyam lan la war a def ak tamit si yan kuréel la war a nekk exactement Malang. waaw kuréel yu mu war a mën a nekk bëri na ndaxte ñoom euh, soo xoolee si formation bi ñi ñu bokkuñu spécialisation donc am na ñoo xamante ne donc ñoom ngeen di faral di rencontrer ci hôpitaux yi mooy ñooñu la sociaux yi soo leen demee ñoom ñoo nekk ci accueil orientation ku am jafe-jafe ñoo lay taxaw euh, ba a personnel bu nekk fa mais aussi léeg nga gis fa koo xamante ne xamoo ban école la génnee mais génn donc yooyu aussi jafe-jafe donc am na ci ñoo xamante ne xale yi ndaw yi maanaam seen àq ak yelleef loolu hmm. donc te soo xoolee problème yalwaan bi bëri xale yi xale yi di agressé enfant de la rue bëri na te ñun ñëpp am nañ xarañteef pour mën a euh, trouver des solutions si yooyu yëpp ñu war a mën a quand même dellu seen i njaboot mën a am encadrement bu baax ba bu ëllëgee Sénégal war a a compter si ñoom waaye am na si ñoo xamante ne médiation familiale et communautaire lañ jaar ñooñu ñooy faral di nekk si si tribunaux yi euh, donc euh, mooy dossier de divorce yi rek ñoom ñoo koy réglé yenn contentieux yi su amee ñoom ñoo koy réglé te ñoo ñu woo bëri na dossier yu jaar seen loxo te xëy na ñoom suñ fa nekkul woon dañuy aboutir au divorce mais yàlla da dimbali léeg-léeg la forcément nag bu fekkee daa jaar seen loxo divorce su mënul am wax ma loolu mais euh, léeg yàlla dimbali leen ci seen technicité ci seen xarañteef ba yenn yoo xamante ne waroon na mën a ñaaw mais yàlla def sa xéwal ba finalement duñ yegg si étape yooyu noonu mais même bu fekkee yegg ngeen si étape divorce ñoom am na nu ñu koy gérer ba intérêt supérieur de l' enfant boobu noonu ñoom dañ ba seen i conflit boobu noonu benn impact bu bon si si si xale bi nuñ koy taxaw mais am na ñoo xamante ne aussi lañ jàng mooy li nga xamante ne mooy wàllum ñi nekk ay wàllum euh, way laago yi donc di nga gis xale yoo xam ne dañoo am problème wax xale yoo xamante ne euh, dañoo seen cër yenn cër doxul et cetera mais du xale kese sax même mag yi nga xamante ne way laago loolu et cetera donc ñun jàngal nañ leen la nga xamante dañ leen encadré taxaw leen ba ñooñu seen i bopp dañ dugal ni que man comme que yàlla téye na sama cër bii rek la ma war mooy tàllal loxo donc danañ leen encadré ci nañu mel noonu ba ñu war a mën a demal seen bopp war a mën a amal seen bopp bokk société bi gëm seen bopp xam lañ fiy jëriñ donc yooyu daal mooy plus ou moins le travail social mais aussi soo xoolee jamono euh, régime par socialiste bu mu demee ci lycée collège yi parce que day am ay xale yoo xamante dañu toll ci puberté c'est l'âge de révolte donc ñooñu sineebar euh, yi ñuy tux tey jii nii euh, di di jëfandikoo ay sangara ci école bi loolu def ngeen ci reportage yi journaliste ba sonn mais da gis ni que yooyu bu fekkee yooyu delloo si nañ ko war nañoo mën a taxaw xale yi accompagnement psychosocial ba ko war euh, dimbali leen gindi leen ba duñu réer te nag léegi ku ku ne xam na ni tentation yi dañoo bëri ndey ko dañoo bëri ak nouvelle technologie donc il faut que ñu dimbale suñuy ndaw sinon rek dañuy réer lu leen këf yóbbu leen dafay yomb donc yooyu daal mooy euh, mooy mooy yoo xamante ne dañ liggéey mais li ma bëggoon wax foofu noonu mooy que mhm. état du Sénégal daf ñoo war a mettre ba ñuy jël suñu métier rek tënk ko si ay distribué da gis kuy séddale fii sax naan la social laay rek mën ko déet mën nam pàcc si social nga rek ba si gën a ba si gën néew ba si gën a moom ngay def suñu mettre devant nos responsabilités ñu jox ñu la mu war ñun mën nañoo dindi ñi ñi si loolu yóbbu leen ci la nga xamante dañuy mën a seen bopp nekk des champions économiques de de l' action euh, sociale hmm. de l' sociale si CPRS et mais foofu lu ma fa doon wax sànq si nasaraan mooy que ni di dem si service boo xamante benn nit ngay gis ne état du Sénégal jël ko fa affecté ko foofu te mu ngi jël ay ay milliards dugal ko ci formation ndaw yi ba pare toppee leen seetaan naa leen non dans tous les cas prévus kooku noonu nga xamante ne dañ ko affecté moom kott ci service maanaam su feebaree service dañ koy tëj su amee ngant service dañ koy tëj nga yaakaar loolu xel la man parfois muy toog maanaam état du Sénégal mi état day xalaat donc loolu daal mooy situation boo xamante moom la ñuy moom la ñuy jànkonteel euh, jamono ji nii ci ci réew Mm. Malang Federa kon su ma déggee sa wax euh, travailleurs sociaux yi am nañ njëriñ bu baax a baax bu fekkente ni jox nañ leen seen gëdd kon euh, mm. étudiants yi nga xam dañ leen euh, former ci école nationale des travailleurs sociaux et spécialisés di ENDSS dañuy am problème pour ñu recruter leen te tamit est-ce que payoor yi baax na wala baaxul ci ñi nga xam ni déjà recruter nañ leen ñuy liggéey est-ce que fay bi baax na aussi buggoon naa nga ñëw si. xam nga un travail social moom il est transversal donc euh, privé mën na ko jël tout comme état du Sénégal mën na ko recruter man mi di wax ak yow du ma fonctionnaire. Mhm. mais maa privé du dëgg. Mhm. donc bëri ñoo xamante ne leen di recruter ay programme ñu leen di recruter ay projet mais su ma nee recrutement mooy que ni recrutement ka mu war mooy que former dans un premier temps bu fekkee espace fi donc moom moo dugal ay milliards si formation fa a liggéey mu ngi nekkul du càgg que ni ko bu état du Sénégal recruté wul ak ñu liggéey c'est vrai que ñi ñu liggéey mais état du Sénégal la ko war la war a mën a def ba pare soog a ñun ña sa def doo ko xool bu dee privé bi moo leen gën a ñu daal di dem si privé bi donc hmm. loolu la quoi. Euh, payoor bi nag baax na baaxul. waaw bon euh, payoor bi maanaam si fonction publique bi wala ñu nekk si. waaw si bi que privé bi daal. Hmm. waaw man xam ma nekk moom si fonction publique bi. mais hmm. nag lu may wax mooy que ni soxla nañ ñu gën a valoriser vraiment corps Mhm. Euh, te foofu noonu sax dama fay def taxaw seetlu parce que man bokkoon na bi ma nekkee président du CIE mooy maanaam ki nga xamante ni moo yoroon baatu étudiant yëpp mhm. euh, doon jàngi ci école ba bëri na ci suñuy point de revendication loo xamante ni foofu noonu dañ ko doon saxal di mooy que ni la euh, maanaam l'habillement du corps parce que am na ci ñoo xamante ne dañuy jàll concours professionnel bi nekkoon ay enseignant amoon ay indemnité de recherche amoon ay indemnité de xawma documentation amoon ay indemnité bon am na ñoom nu ñu koy yu bëri te ñoom suñu ñëwee si corps bi dañuy faral di perte yenn indemnité moo tax da ngay gis koo xamante mu nekkoon enseignant jàll concours professionnel bi ENTSS euh, mu ñu placé ko mu mu dem commencé liggéey perte yenn avantage mais écoutez xam nga logique pour logique mais comme nit ki bu fekkee danga nga am danga nga da jàll étape supérieure maanaam nga yokk grade grade boobu noonu da nga war a mën a sentir si sa gafa mais nit ki waroo mën a yokk grade ba pare sa gafa gi nga am lu mu si perte donc loolu tey ba fi may wax yow du loo xamante ne saafara nañ ko donc ce qui veut dire payoor bi am na si ñoo xam ne dañuy gisee yenn koor yi ñëw si suñu koor ba pare di perte ay alal te loolu du loo xamante dafa dafa jaan. Mm-hmm. donc euh, lu war a mën a lu ñu war a mën a valoriser la davantage mm-hmm. euh, naka gisee euh, bourse de sécurité familiale bi nga xam ne état wu Sénégal daf ko teg pour jëm ci wàllum politique sociale u régime bi yow ban jàngat nga si am Malang Fadera. bon man jàpp naa ne politique moom benn politique sociale bonul. bon luy tax muy bon lii rek la. dénk kooku warul dénk. ak kaka warul nas nas ko te nag loolu moo ñu dal fii ña ko warul nas ñoo ko nas ñañ ko dénk du ñoom lañ ko war a dénk conclusion mooy lan forcément baaxul baaxul parce que résultat bi mooy ña siy bénéficié tey lañ gën a ndóol tey lañ gën a sonn tey lañ gën a xiif tey lañ gën a mat baaxul programme bu baax mooy nit soo ko dimbalee ren déwén soo ko naree dimbale mën na la baax la mën na naa xam bopp boo war a mën a dimbali kenn loolu tant que nekkoo dans le nekk ko dans le travail social te ñun loolu la xeex bëgguñu ñu résumer suñu métier ci ay séddale baaxul loolu du travail social. d' accord euh, naka nga gisee aussi loi d' orientation sociale wala carte d' égalité des chances dugg ba léegi ci wàllum social euh, naka nga gisee mbir moomu pour àq ak yelleefu ñi nga xam ni dañu am handicapé fii handicap plutôt fii ci Sénégal. waaw xam nga Sénégal amul problème mu Sénégal bu dee ay question texte mooy suñu arsenal côté boobu mën aw ma dara lu ma ci yokk ci ay question de texte gëm naa ne am nañ arsenal juridique bu dëgër aussi bien pour euh, les personnes en situation de handicap aussi bien pour xale yi ak lu munti doon am nañ arsenal juridique boo xamante vraiment euh, foo ko teg ci àddina ñu naw loola benn problème lañ am mooy applicabilité waaye soo amee lu baax te doo ko jëfee loolu amul njëriñ aussi. Mhm. Euh, ban jàngat wala noo gisee ministère de la santé et de l' action sociale est ce que a non mënuñu mënuñu see sentir seen bopp à partir du moment où maa ngi bi yëpp donc euh, su ma la waxee jafe-jafe yi fekk na moom mooy suñu suñu waajur donc mooy nekk nii moom xamuma ko waaye ka fa nekkoon xamoon naa ko jot naa ko pratiqué man maa jiite woon étudiants yi te moom moo jiite woon ministère donc jot ko pratiqué si ay engagement yu muy faral di hmm. waaye koo xamante ne moom euh, ñaan moom wax dëgg yàlla mën na leen dinaa jël engagement mais su desee lu généralement du koo xamante ne sax da nga koy séen kii moom pratiqué wu ma ko waaye soo xoolee lenteur bi ñuy nekk jafe-jafe yi ñu continuer di nekk da gis ne moom dafa jàpp ni ministère de la ministère de la santé kese moo tax ma jàpp ne tey jii ndax jotul sax ñu seppi action sociale ci ministère boobu noonu daal di ko samp boppam waaw ndax dama jàpp ne jamono ji war nañoo mën a toll si situation boobu noonu parce que euh, mm-hmm. ñii ñi nekkal duñu faral di xam réellement euh, lan mooy seen lan mooy lan mooy seen rôle. naka la ñu mën a euh, valoriser li nga xamante ni mooy le travail social. naka lañ ko mën a. joxe ko a mën lenn kese mhm. mooy euh, ñu bàyyi amateurisme bu ñu nekkee. nit la mu jàng nga ko. kenn warul mën a mën lépp amul fenn ñu bàyyi calcul politicien yi ñu nekkee. gis nga nit ki bu fekkee la mu jàng da ko dénk dina la defal résultat boo xamante ni résultat extra bu ñu siiwal sax di ko am parce que sénégalais ñoo ko gisal seen bopp. gis gisal lu ne faa kenn du ko jeex. Mhm. waaye bu fekkee yow souci électoral kese nga am. mën nga jël nombre ñu fi dugal yëpp gisuñu ko donc lenn rek la ñu war a mën a lijjantee situation bi mooy ndaw yi ñuy former suñ génnee automatiquement nañ leen recruter yenn nañ nañ delloo yenn services yi seen i mooy euh, services sociaux yi nekk si lycée yi mag yi nañ leen fa delloo xale yi nii service service boo mënte dem te am fa benn nit nañ fa jël keneen ñu daal di ko dugal je pour les services euh, du développement communautaire da dem je n'ai mhm. mais da dem si yenn service de développement communautaire yoo xamante ni ki enseignant directement xamul dara si administration xamul dara si loo xamante noonu la ñuy piloté jël ko dénk ko alors donc xam nga yooyu yëpp la ñu war a mën a a mën a saafara lu bëri te dina am résultat yoo xamante ne sax xëy na dina jéggi dayo quoi te nag muy basé wu pays développé soo xoolee pays développé dañuy jël travail social jiital leen seen seen de développement moo tax ñu am yenn résultat yi. Malang Fadera Rewmi FM exemple mi ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité. man maa ngi sant di la gërëm voilà may fàttali ni travailleur social nga spécialisé merci beaucoup ci disponibilité. disponibilité bi. jërëjëf sax.